Ibrahima Fall bisara la ilaha illallah bisara la ilaha illallah kalimatu la ilaha bisara la ilaha illallah yàlla rekk ay buur بشرى لا إله إلا الله أنا باي فالي أنا صوت بي شيخ فالباي الجور بشرى لا إله إلا الله يلا ركي بور بشرى لا إله إلا الله يلا ركي بور بشرى لا إله إلا الله يلا الركب الله نور سماء يلا كلمة الله نور سماء وخلين الله نور سماء ولا أرضي منفردا وليس يدفئ نور الآي إدفاء نور سماء الله أو نور سماء منفردا لا نور الآي كبك سرين توبا الله أو نور سماء أنا مريد مقلن كو الله أو نور سماء yàlla kenn la allah nur sama wala ardi munfaridan nur allah idfaa الله أو نار سما منفردا منفردا لا نور الله فابلل إن القصيدة سوداء وخراء خسدمي خسدمي سربي إلى مدوج من أم يبجد يا دين يا دي سنك سيلا وليا ku bëgg Serigne Touba yëkkatil say baaraam nu màggal borom jumaa ji borom jumaa ji sëñ bi ilengoowal sunu mbir yow la lépp bir maa joxe ay jëg min si sama ay Seex Ahmadu Mbakke Ahmadu Mbakke Ahmadu Mbakke borom Tuuba bég nga noo faggul yaa jëre yëngul maam nanga noo nangul faw xal adaay bayu Seex Mustafa bayu Sëriñ Falilo gu Sëriñ Bara bayu Sëriñ Basi bayu Seex Abdullah Seex Bamba ñu ame xar baax sëriñ bi may baax ñoo jara saare Cheikh Ibra Fall maam Cerno Cheikh Mandumbe sëriñ Masamba maam Mor Jaara bay ma am sëñ Njaay Fall sa tolluwaay ah daa bay ma am sëñ Fall sa tolluwaay bay fali daa bay maam say njaay Fall sa tolluwaay daa bay maam say njaay Fall sa tolluwaay daa bay maam say njaay Fall sa tolluwaay kawe na yaay waay yaay waay Bamba Cheikh Ibra ku bëgg maam Cheikh Ibra yëkkatil seen baaraam du màggal baay fal fal njaga kawel nga paalen teral nga njaayeen kawel nga paalen texiba teral nga njaayeen baay fal bi kawel nga paalen teral nga njaayeen kawel nga paalen baay fal bi teral nga njaayeen kawel nga paaleel Cheikh Ibra teral nga njaayeel leeral muridi naay faal yaa ay lamp Bamba Cheikh Ibra Faal Faal Cheikh Ibra Faal faal njaga yaaram leeral muridi faal yaa ay lamp Bamba Cheikh Ibra